ahlan bikum ku bëgg nekk murit dangay nekk jullit ba du samay kaddu khalifa général de mourid moko wax ginnaaw ciowal Idrissa sek li lëmbe réew mi xalifa bi aduna ci jaare ko ci porte parole am Serigne Bass Abdou qadir enquête yéen a kaay yeggee ñu ko te mo yéen a kaay ne Idrissa sek kay waxam ji tax na xalifa général de mourid leral yëf yi ne gis nga serigne Touba yoonu mourid ak mbolam taraxa yi nek Sénégal ben lañu ken mënul leena féewale wala kep ku ko bëgg da nga ca wét kon ku taxaw naan man mourid la waro wax wax juy féewale ay doomu adama waro wax wax ju taal rew waro ñak ak yar ak teggin ci enquête yéen ka khalifa bi neena kep ku beug a yàq diggante bu ratax rafet ci mouride digeunte mouride ak yenen këru dine nam rataxé ak nim rafeté ku ko beug a ya yàqala yàqu yow ndax da nga ca wet te kep ko xamne tamit hab mouride nga sa jëf warta wuutee ak yoon wi nga xamne mom la ku tedd gi xaadimu rasuul rëdd te moy nek ab julit bu mat seuk sop yonent yàlla muhammad di jaamu yàlla ak liggey wayen digal l'observateur na khalifa bi kay wax na ca kaw de leer na le soleil yéen a kaay na ko tuubaa kay dëkk bu sell ba ñaawlu nañu ba pare nag dànkaafu mboolem ko xam ne say pexe mooy taxal réew mi sursu aay yéen a kaay ne sëriñ bi yow xalifa général des mourides jërëjëf li nga wax rafet na sa taxawaay jekk na turbine yéen a kaay mel ni ku naan ko sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke kay xalifa bi ñëpp ko war a sant gërëm ko ay yow seetal fa gàntal pexe ñi bëggoon a féewale tariqa yi ci wal fa yéen a kaay na ko loolay dëgg xalifa bi àndut ak Idrissa Seck ci kàddoom yi ndax soo déggee li wax xam na fa koo ñaawlu vox populi na ko loolay dëgg Touba faralu ñu benn yoon Idrissa Seck ci waxam ju ñaaw jooju yow nga ne man ab taaliba laa te àndoo ak yar di wax lu ñaaw loolu mënta ne ndax ku tedd ki Serigne Touba bu nekk ak fitna ju teg nañ ko ko waaye ba mu noppee nu def fa baale jéggale loolu leer na li leeragut ba léegi nag mooy njiit réew Macky Sall ginnaaw bu mu juróom-ñetti milliards dimbalee ko étudiants yi ci yokk seen bourse yi ak tike yi ba léegi problème bi rek leegut ndax étudiants yaa ngay garaw turbine yéen a kaay ñu ko xamal li xamal moom tey mooy yéen a kaay mooy étudiant yi bokk ci APR farandoor njiit réew Macky Sall daal ñoo jaxase pale ba APR Macky fa leen a xoowoon dalal leen ca pale ba waaye bi ñëwee ba ci buntu ba ñu ne leen juróom fukk ci yéen ñooy dugg fekk fa taxaw ëpp na ñetti téeméer ñoom ñëpp ne dañuy dugg rek xeex ba tàmbali bañ duggee ca biir tamit ñoom ñëpp bëgg a wax ba fit na jóg fa te mooy yéen a kaay lu ji njaaga nag Thérèse Faye moom lañ ci joxoñ baaraamu tuuma les eco yéen a na ko bul fàtte maam bay ñang de ne loxo ma ca biir nay leer laneen lu leer ba yegg ña ngay sàkku si njiit réew Macky Sall mu tekki ndombal tànkam ndax fëttale même yore réew mi ak fitna bi nga xam ne moo am ci njàng mi mi enquête yéen a kaay ñu ko xamal ba tey yéen di ñu xamal ne xattab imaam Aliou Ndao ba avocat am ya contre attaqué nañ démb daal ñaawlu nañ niñ jàppe imaam les ko yéen kay na malen koy wax avocat ba neena imam ali ndaw Ndao bañ ko fekke ci kërëm Kaolack dañ ko toroxal yew ay loxam ci kanam jabotam fitnal ay jabaram ak domam ci anam gu ñaaw avocat am bi yok ci ne imam ali ndaw su fekkoon bokku na ci ben tarixa Sénégal ko doon xañ na du deme ni enquête yéen kay diñu xamal ne tere diñu tere tuxum cigarette mi ci Sénégal tay la walu gëna ay xex bi gañu amaguñ ci ndam ay yow set Sénégal fu neex waaye taxaw tux te loi am na barab yu mu aaye mais kenn waru faa tux gars yi nag wuñ ko benn xale bu góor nee na man sama bàyyi fa maa bàyyi doguma du wax ak man ndax cigarette gi may tux beneen xale bu góor ci yéene kaay ne man de cigarette xam nga tax ma koy bàyyi dee dugg sama baa mel récco topp de bu la leera rek muy sa jàmm ki amul jàmm fan yi mooy meeru Malika wàllu tappale jaay suuf ca meeram ba lañ ko toppee ba jàq na daw ngir làqatu ji APR libération moo ñu ko xamal source a yéen a ne ñetti ministère danañu tuxu jam ñaajo ma tuxu ci xibaaru tàggat yaram yi ngir wax leen na tey dana bal jogante xaritoo ak Luxembourg stade yéen a ñu a kaay moom di ñu xamal ne Cristiano Ronaldo jege na lool ndax ay milliards yu du xaj di jeex la ko naar ba dig ba tey yéen a kaay bi dañu xamal lan moo tax canal plus ñàkk droit wane ligue 1 sunu lamb yéen a kaay dañu xamal ne combat Eumeu Sène Bombardier tey la ñuy xaatim contrat ba ca CNC